kon euh, mbokku téléspectateurs yi am mbégte nag dellu seetuwaat ak yéen ci seen émission bi di wareef ci ñaareelu xaaj bi fa tubaakàlla macha allah ba tey rek seetaan nañu reportage bi ñu nekk ci jafe-jafe transport yi nee naa leen jafe-jafe transport yi ne ku koy wax balaa accident di ñëw am na lu jiitu ci wàllu contrôler nit contrôler oto ah contrôler mm. lépp ah li jiitu accident hmm, su accident bi teewee tamit am na lu bëri luñ ci mën a wax. ah ci wàllu yéexaayu évacuation nit yi ci wàllu foo dem ñu ne lu fii du place am nga yore sa blessé di wër ak moom hôpital hôpital ba mu mujj nekk néew waaw ay ñoo xam ne dañ leen war a mën a sobe nga yor leen foo dem Dakaaroo Ceesoo Kawlaxoo fu nekk ñu lay ñu lay jaabanteloo ay waxtu am na ñoo xam ne minuit ba 6 heures du matin dañuy yor seen blessé seen oto di téye ñu leen di jaabanteloo foo dem ñu ne ba foofu ba mujj gi li nga yoroon blessé mu mujj nekk néew loolu ñu koy dund fii sénégal yi di ko dund mu nekk seen góomu xol mu nekk après après loolu tamit problème mu assurance problème mu indemnisation problème mu lépp kon chaîne bi nee naa fii metti su doon góom la la waaja doon wax càqaar ak góom ak lii dem na ba nekk cancer nekk na ba nekk góom bu sore boo xam ne suñ defoon nànk ñu dagg tànk yi te dagg bi du suñu cër ndax ay ci réew mi lañ ne ay doomu réew mi lañu ñu war a waxtaan bés bu jet ñu ne nangami moor fekk liir ca buntu kër fekk xale fekk ay école xale yu nekk seen buntu école yenu leen fekk ku tëdd ci néegam ca diggu lalam nga ñëw laa la wax amoo frein amoo permis dugg ca miir ma miir ba ba mbëkk ko ca kaw lalam lépp am ci Sénégal anarchie bi ñàkk yar bi yara ñàkk xam suñu bopp ñàkk wekk nit chauffeur boo xamante ne laa wax lépp lay lok nga gis ci mag moo xamante ne ne que car rapide baak euh, euh, set place baak oto ba mu dugg ak lépp xasaw xun ak sàngara nga gis tamit oto yi nga xamante ne ñu naan yi ay oto chinois la oto façon oto bu ne di daw ci réew mi ñu dem ba nga xamante ne léeg ñu naan ay camion malien yoo xamante ne camion yi nam day suñ duggee ay xale yu tuuti yoo ko xale boo xamante ne laa soo xoolee poids am matul 40 kilo ñu yéegee ko ci oto nangami tonne muy daw xale bu tuuti amul visibilité boole cigarette baak euh, ñoll gaak lépp li fi ne dafa bëri te soo waxee lépp ji nekk waxkat waaw koo dégg muy damaa xam oto na delluwaat ginnaaw ka jëkk a liggéey oto oto ko rey. moo jàppkatu jaana yam jaana koy mujjee bu kenn nax amul ko kon njëkk a oto oto ko rey liggéey oto ko rey. Mm. moo jàppkatu jaana yam jaana koy mujjee. ki xam oto mooy ki respect boppam jël jëmmam nag jox ko oto bi. dëgg la genn góor dafa ma ni ki xam tali dëgg bu génnee def nit ñëpp. ñiy dawal ñëpp ab dof defapam nit. dëgg la. waaw dëgg la dëgg la. mus nañ ma ko wax man loolu lañ ma njëkk wax. si man daje ma ak ba may am permis loolu lañ ma njëkk wax. dañ la koy wax. Ah. defal ñëpp. dof ñu wéré di def sa bopp nit. dëgg la. moytu dina am. tey dina am. dëgg la règle dina am. dëgg la jox nit ñi àq dina am. dëgg la. dafa amatul nag amatul. Mm-hmm. gënoo maa xam li may def. Mm-hmm. ba mu jibee mm-hmm. la tëli bi laf jox permis ku ko mérité ba mu amee la dee gi bari ku laxal làqat jéegugul sarse abiyo kabiyo ba mu fees tël te balaa am jàmm làqat ci ko ci tëli bi lay làqat ci ko waaye ñu ni ci biir oto bi lay làqat ci ñu doon néew xam nga te benn respect mu ci du benn dama la ni euh, déggeen permis xamuñ sax luy permis ñu koy foyee xamuñu permi waaye permis bu jëkk am na ñu ko daan moom ñu ko moomul. Mhm. du ku jóg rek mën a am permis. permis la waaye arme la. tamit koo koy jox ni ko tiireel war ngaa xam fi muy tiiree loolu moo amatul moo tax waaye nekk tiire déegi bari respect amatu ci at yi néew na mhm. ñàkk nañu kersa mhm. yaruwuñu teg ci xamuñu fu ñu jëm bàyyiwuñu dara seen ginnaaw li leen di gêné ku kël kinul sa ginnaaw nag doo kël sa kanam moo bari ma bëgg di alkaati yi ak gendarme yi gendarme yi sax moom ni ngay moytoo gendarme sax doo ko moytoo alkaati yi ñu jël seen misir bu mat sëg te maslaa bi ñu bàyyi arrêté ko maslaa bi bari uh-huh. sëñ bi da ngaa mu ne ah noo garaawul de bu jëlee sa permis dinaa am faas mbaaw waaw moo am fu fanweeri pañe yoo xam ne daanaka dañoo jaay ba pare R4 ba mu soixante-dix ans. doon deux portes teg ci. ay finifeer yi yeew ko amul lumière da ngay gis ko sëgg bokk ab pañe te munti si gis r bi ndax daa daa jegeñee ay dénk la tiim ngay daw faas mbaaw route nationale. di romb ay policiers. waaw waaw hmm. waaw ak i gendarme. Ah, faas mbaaw route <laughs> nationale. alors problème mu transport yooyu du sotti. tey ñi xëy na ñu ay transporteurs dinañ jël seen matuwaay. Hmm. dégg wërsëg yu bari na oto yu bari na waaye am ay oto di ko jox ñoo xam ni saa bu ñu xëyee ñu ne sa oto bi def na accident dañ seetaan li ñu di verser ak li ñuy lekk lan la kaay di nga fegal sa morom jël. tam na loo xëy nag xaalis jaru ko. jëru ko. Mm. mag mu dem a dem a dem a dem ba mu wóor la ni fi mu toll xañ na amatulum liggéeyaay sëfoor la am na lu muy bëgg a lëqati ko indi ci ak njabootam. lam ma cay am ak néew sa oto ak lam lay jox ko si néew gëmal yàlla ndax am nañu ko amul waaye defatuñu loolu dañuy fekk xale bi ne ci digg ndawam amul jabar amul doom lu ko neex def lu ko neex fanaan mhm. nga jox ko oto ni ko fukki junni nga may wersi mu bëgg cent mille francs tadu nelaw teg ci loo am jël tout à fait ngeen euh, problème transport au Sénégal lijjanti ko du yomb parce que à tous les niveaux la sooxee man xam nga dañuy wax indiscipline indiscipline waaw waaye man ci sama gis-gis ku gàtt impunité bi moom moo tax phénomène bi gën a yokk parce que su fekkoon ne nit ki dafa def dafa def euh, njombe nga teg ko ci yoon def ko li nga ko war a def punir ko su ëllëgee dana sóoraale euh, la muy def mais c'est-à-dire man gis naa koo xamante ne bi ma koy xam xëy na ay 2004 la boobu ba léegi balaa loolu sax de mi ngi dawal ba léegi mosul am permis soo ko waxee xam nga lu mu lay wax man saa bu may génn gànnaayoo samay ñaar téeméer wecceeku ko ba mu bëri def sama kalpe tu t'imagines impunité bi ci tali bi c'est que tata dégeen police gendarmerie ñoom ñooy nekk ci tali bi tata dégeen war nañu réye ñoom si seen bopp la ñu war a dem rééduquer waat parce que man je ne comprends pas et puis sans gêne ñëpp dañ si teg seen bët ñu lal basan nangu sa permis dem taxaw fa fële nga ñëw joxe ñaar téeméer nga jëlaat sa permis dem et ça se comme sa partout si biir Dakar partout au Sénégal je pense que impunité boobu nekk na première raison bi nga xamante ne looloo tax accident yi tata déggéen bëri ci dëkk bi looloo tax ay oto di sañ a génn sans euh, euh, plaque d'immatriculation ndax xam nga ne ne bu ñu la arrêté boo joxee ñaar téeméer mbaa 2000 francs tata déggéen nga dem te suñu waxee ne nag accident mooy première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 30 ans te taa dégg ngeen faudrait qu'on pose la question nag toog waa lan moo a lii ah lan mooy problème bi te taa dégg parce que ñëpp a fonk seen bakkan mais toujours Sénégal ji ko sénégalais ji koy nit rek ñeneen ñi lay dal du man ba keroog mu lay dal nag nga yéem allo. allo. waaw soxna si. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, Adja dégg ngeen na ngeen def. sant yàlla. maa ngi leen di ziyaare bu baax. mu ngi lay sargal bu wér a wér. ani fooy maa ngi wootee France. mu ngi nuyu waa France soxna si. mu ngi lay fay bu baax. bisimilah. di ziyaare Papa Ndiaye la. ndeysaan Alaaji baax doom. di nuyu Thiat tamit. naa ngi lay fay bu baax soxna si. Thiat dafa wax léegi wax bu am solo. Mm-hmm. nee na affaire accident yi lijjanti ko du yomb. Mm-hmm. ngi leen di jaale soxna si ngeen affiché. ndeysaan soxna ku man mënuma wax sax. parce que sama sœur li yóbbu soxna si moo ko yóbbu 2009. Hmm? fan la ko yóbbu. lu dak demoon di rectifier passeport am. Hmm. camion bu mag a mag a mag ñëw ramasser leen ci guddi gi. fan la loolu. Louga. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. 2009. Hmm? mu dem rectifier passeport am wàcc doomam ju ndaw. ñetti doomam ne sama yaay maa ngi dem te ñëw dafa siburu duma sax fanaan Dakar. ñun ñi cinq heures du matin lañ ñu téléphoné fii ci Europe ne ñu accidenté na gaañu na sur place muy accident bu doy waar mu tudd Fat sàll comme Kumba sàll mi. na ilayhi bàyyi doom yu ndaw a ndaw ñu koy jooy le 6 mille 2009 ba nëgë ni noppeeguñu lii may wax ni waa Louga gépp xam naa ne ña ngay jooy. Kumba Sall mi dañoo nuroo. ni ma gisee photo bi bi ma ko gisee ba léegi dama amoon rendez bu mënatuma dem même accident. inna lillahi wa inna la tudd dëkk Louga le 6 août. 2009 na ko suñu borom bi yéegee ci àjjana yu gën a kawe. amin amin Louga ah. dañu ba léegi Louga ña ngay jooy noppeeguñu. ndeysaan ndeysaan Mokumba Sall mi dañoo mel ne ñoo bokk ndey ak bay. bi ma gisee affaire bi ba léegi mënatuma def dara. ndeysaan. accident yi day na waar. lool. ñi ngi rey nit ñi te dara du leen ci fekk. lool lool lool lool lool. chauffeur ba ko reyoon tey ma ngay daagu di def lu ko neex. billaay ci ñeenti at ma ngay di def lu ko neex yore làmmiñam bu rëy. te xam nga ni loolu du yoon. waaw bàyyi ñetti doom yu ndaw doom ju mujjee bàyyi trois ans la war a am nii. ma nga ca Touba law ndeysaan wante yal na ko yàlla xare àjjana te xare àjjana Kumba Sall mi amiin amiin amiin yaa rabbal Kumba Sall mi na rëcc lu mu doon def ci àddina bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan amiin bi jëkkëram ji di wax dama jooye jooye jooy ba nuratuma nit wallaay ndeysaan jëf bi nga tuddee Mali ma rakk tam da doon dem ay Mali ndeysaan ciw bi ma joxoon ba léegi mi ngi nii ma teg mënuma ko sol wallaay wallaay ndeysaan yàlla na xippee ca àjjana yu kawe ya wallaay ndeysaan amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin ñaari doomam yi mu fi bàyyi yàlla nañ dund ba di ko ñaar allahumma amin amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin fii ma toog bi ma gis photom bi ba léegi mënuma jóg parce que ma la yónnee woon sama photo sœur comme jumelle la wallaay wallaay wallaay ndeysaan yàlla nañu bokk ñoom ñëpp nekk ci keppaaru Seydina Mohamed amiin amiin amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf wante accident yi war nañ ci wax yéeme na lool lool yéeme camion bu mag mooy fekk oto bu ndaw mu ramassé ko te dara du ci fekk chauffeur bi wallaay wallaay wallaay wallaay man nag maa kontaan naa trop ci seen émission ndax da ngeen ñuy yee jërëjëf te nit ñu yiw ngeen nit ñu baax ngeen. jërëjëf jëf man su ma amee render bu damay joxe après 14 heures ndax bëgg a déglu émission bi. walla yéena moom émission bi. ba émission États-Unis dama ko doon déglu. wallaay jërëjëf jërëjëf. émission yi ngeen def yëpp nag am na maanaam mais accident yi moom. ndeysaan. war nañ cee wax de. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. na àddina ñëpp ñëpp ndax ñun ñoo ngi dund waaye ñu sœur yi dem ah. ñu dee leen rey leen ci rey bu ñaaw. wallaay wallaay ndeysaan. te mujjul fenn Adja Dégène métti na. am na loo xam ne soo ko soo ko dundee sax dundatoo. non boo ko du merci beaucoup. waaw ah, dundatoo. da ngay dem nii rek man a sax trouver waaw ah, dundatoo. 2009 ba naga ni ku bokk ak Fatou Sall dundatoo. wallaay wallaay waaye. sant waxuma sax mbokkam mais Louga dama la ne ñëpp a jooy Fatou Sall. ndeysaan ndeysaan jërëjëf jëf waaw maa ngi leen di sant bu baax. ñaan yal na yàlla yàggal seen taxawaay. amiin amiin bàyyi la fi bàyyi fi Pam Ndiaye loo ak. Thiat amiin amiin Sall ndax seen wax moom franchement am njëriñ. ndeysaan ndeysaan Sall. merci beaucoup Adja Degen. na yàlla fayal ñu leen. jërëjëf ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, xam nga kii man Sénégal euh, alaaji ma crise wala ma ma bañ a crise man mii may waaj a crise man mii may waaj a crise man li li ma dégg lépp tey xajul sama bopp bi alaaji dama danga may laaj li ma gën a naq da ngay dawal benn camion wala benn oto faat téeméeri nit fukki nit vingt nit ñu tëj la benn euh, ñaari ñaari at ak kaso nga delluwaat jëlaat sa permis di dawalaat Sénégal yow man mënuma concevoir man mënu sama sama esprit jéem naa tëdd heure bu ne nga rey benn nit kese ñu lay joxaat permis rey dix personne daw bàyyi leen fa xëyaat di suba di jëlaat beneen oto di dawalaat man loolu man sama imagination ba pare lu tax ñuy def comme comme États-Unis di tëj nit ay cinquante ans xam nga man lan laa bëgg ku rëy ñeenti nit ñu jël espérance de vie ñooñu lañ na woon dund tëj la ko nga xam ne dootoo gisati euh, kii ba euh, deewee ci kaso bi dafa metti dafa métti. ah, ah Zey waxoon naa damay crise jël ki ci ligne bi. allo. Ah. allo waa salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. waa Thiat na nga def. maa ngi fi maa ngi sant bu wér. waa man damaa ngi tudd di woowee ba Djibouti. ñu ngi nuyu waa Djibouti yëpp. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér soxna Degen di ziar Papa Ndiaye Lo Ndiaye suñu kilifa suñu mbokk taalibe. aysan maa ngi leen ba Djibouti nag. ñu nuyu waa Djibouti sénégalais yi fa ne yëpp ñu ngi leen di nuyu. waaw waaw waaw Ndiaye Degen kenn boole si nuyu bi nag. ah nuyu Djibouti kay léegi moom duñ ko bàyyee te caane si Djibouti ah, ak waa Djibouti yëpp duñ ko bàyyee. waaw pour ñu fàtte man daal ci sa soppe yi laa bokk moom. ci waaw di di leen jaare na Kumba di affiché photo vraiment damaa ci sama kaw la fii ma tëdd vraiment gis nga sama baat bi sax ni muy loxee wallaay wallaay ndeysaan gis bu nekk damay doy ma insisté nag dugg mais du ma mën dugg damay insisté ba toon sonn ko yàlla dogal wallaay wallaay ndeysaan waa tey moom sama xol dafa tooy parce que ba ngeen wax waxi accident ci tali bi hmm. Touba am na famille Mbodj bu accidenté woon. Mm-hmm. famille Mbodj. mi ngoog samay rakk lañu. ah. lu metti waaw sama frère ak sama raq bu jigéen may mun a Mbodj ak jabaram ak doomam. ñeent lañu woon defe naa. ñeent ñoom ñëpp wallaay azib. ñeent ñëpp a gaañu woon. Mm-hmm. inna lillahi waaw samay samay rakk lañu. mu nekk nag lu méttee méttee métti métti. ñu delloo yëpp nag ci yàlla rek te xam ne ay jullit lañu te yàlla ñu gëm waaye tamit dëggeen war na ñoo wax ci lii. dëggeen hmm. laisser-aller bi dafa bari. Hmm. te nag li ma maa ngi dégg waa ji léegi naan dañoo indiscipline mais dëggeen di nga toll âge boo xam ne même bu la say waajur yaru yow yaa war a yar sa bopp. Hmm. waaw parce que da ngay respecté sa bopp soo a mën a respecté ñeneen ñi mais boo respecté wu sa bopp doo respecté doomu aadama. te dafa ëpp accident yi bu doon accident rek sax ñu naan dafa gaañu fii dafa gaañu faa ñu ne nangam mais accident yu méttee méttee métti te du am benn poursuite loolu dëgën dafa day waar war nañ cee wax suñu autorité yi war nañ ci wax war nañ ci jóg oto yi nga xam ne danoo âgé nañ leen génne ci circulation bi ku amul permis comme Thiat li mu wax ni corruption bi dafa ëpp dafa ëpp dëgën dafa ëpp vraiment bu xoolaat suñu bopp te gouvernement bi jóg ci ku amul permis ñu teg la ci yoon te permis aussi ñu xool ñu ngi koy jox apprenti mécanicien nga jël oto ni ko dellul Touba yabal ma kooku rey ñeenti nit xam nga ne loolu du dëgg du yoon bakken dafa foor kenn du ko fowe kenn du ko fowe dëggan li ngeen di wax lu leen di sant di leen gërëm parce que ñun mu jotewuñu fa ñuy waxee yéen a fa jote te yéen a ñuy waxal donc ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm dëggan caat Papa Ndiaye Lo Ndiaye yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla guddal seen fan ñu ngi leen di déglu nag ne bu ñu wootee bu ñu wootee wu ñoo ngi fii suñu néeg di wala suñu saa toog di leen déglu te di ci jëlee nag leçon bu nekk nag di ci jàng waaw surtout ñun ñi nekk ci àll bi ñun yéen la ñuy bëggee yéen la ñuy wéttali ko fi mu nekk damaa mel ne maa ngi nekk Sénégal wallaay caane yaa ngi Sénégal ndax télé bi mooy seetu askan wi ndeysaan jërëjëf surtout télé surtout télévision ah, mooy seetu askan wi mooy seetu askan wi. <laughs> a Abdou wallaay dañu bëgg foo leen nekk ñu fekk leen fa ak télé bi incha allah. ñëw leen Djibouti nag parce waa Djibouti moom dañ leen a sopp. alaaji moom Djibouti dëkkam la moom. waaw. gis déedéet tey. nuyul ma waaw waaw dëgg la dëgg la dëgg la <laughs> dëgg la. jërëjëf dem naa fa 77. jërëjëf jërëjëf yiw fa nekk dégg nga. loolu yàgg na. lu baax fa nekk. ndeysaan caane jërëjëf. dëgg la waaw waaw te yu baax bi nekk moom wax dëgg yàlla fonk seen liggéey bëgg Sénégal. ah waaw lool. waaw waaw dëgg la dëgg la waaw maa ngi leen di bàyyi ndax. jërëjëf ñu dañoo bëgg a dugg te dañoo bari. jërëjëf caane yàlla fay. jërëjëf jërëjëf. alaaji chauffeur bu fi defati accident rey nit buñ ma ne involontaire rek involontaire nañ la yóbbu cour d'assises pour commencer gis nga alaaji nga ne nga ne lu Sékou Touré defoon dugguma la diggante seetal diggante diggante euh, hmm. buñ jullee bay dem hmm. euh, fori xeer ya fori xeer ya hmm. Musdalifa Musdalifa ñu otti di dublente te kenn du laal sa moroom day mel ni ay sangaleen kenn du laal sa morom béykat ak jàmm. alaaji gis nga policier màkk yi nu ñuy def. chauffeur bi dawalal bu baax koo koy wax. Ah? xam nga ni dañuy seet ah? dañuy da ngay yàq ay pèlerin ba fees. nekk ci tali bi di dof dof yow ñoom dañoo yor ay yàq yoo xam ne chauffeur bi la ñuy naan nuus dóor la ba tëdd si suuf. jox la beneen chauffeur ngeen continuer yëgu loolu. ah yow tamit dëkk day discipliné. waaw loolu nga ba sax ay dóor lañ lay dóor ay yàq yoon. yow tamit yàlla ëpp yërmande ñëpp. xam nga xam nga ay yàq yoon. xam nga gis nga li soxna si wax. tant que ondulaay sax xañ ñu ngi def naam ndax du ñëpp. Hmm. am na ñoo xam yoon ñu teg la yoon. waaw la ñu ci télé bi nag. waaw waaw. waaye ñi leen rax te jaxasoo. Hmm. ñoo tax sëfar si am fit. dëgg la ñi leen rax. te waaw. laay wax moo tax sëfar si am fit. wallaay wala dëgg te bokkuñu si. am na policier yu nii am na moom nekk ci nekk ci tali bi na ñaari mel ni si la si la si la ma dëkk Thiès te nekk fii ak Bodian. duguma la ah am nañu personnalité. soxna Dégane. si la fu mu fu mu taxaw. kenn <laughs> kenn kenn du jalgati yoon. dama la ne am na si ñoo xam ne laa la wax ni la. day yéen a rax moo tax toujours di segg di normal ba tax pëli oto boo gis li si ëpp sa bopp ji ñeme nañ lu ne ndax loola. piip soufflé la. nga ne apprendre jëli génn mille francs nii ngay def nii ngay def alaaji da ngay jël mille francs bi. Ah. def ko nii nii. Ah. xam nga permis baa ngi nii. ah nga def nii ani mille francs bi sëñ. Eh? nga daal di ko def nii. Eh? xala balaa waa ji ñëw. rek mu ñëw mu ne permis rek nga ne eh? nii. léegi su ma la joxee nag nooy soo jëlee après nooy def. xanaa da ngay def waaw ngay def nii. rooti waaw daal di waaye nag xam nga lii man ndax bëggatuma ko wax. keroog daaw bi ma ko fi waxee. dama laajal yaay Fatou sama benn policier bu ma télé. bu ma bu ma bu ma oh. kii bu ma arrêté woon. yow allaaj permis pièce yëpp mu laaj ma ma jox ko ko mu xool ma ba xool ma daal. Mm-hmm. indil ma infraction boo xam ne musuma ko gis àddina ah, jël sama permis taxaw fale yow ma ne waa ji tooxal ma sama sama uh, yaay Fatou ne ma maman bu laajte ma ne ko mu ne ma tem bi nga nekk la hmm. bu laajte waaye policier boobu sonal gam ma sonal hmm. gis na tutaat ngeen nag ah, dañ dem man jour bi ma gisee policier bu ñàkk bañ ñaar téeméer hmm. tataat ngeen dama c'était une surprise ah ñoo ñoo intègre non sérieusement et c'était c'était ay dama leen di def un coucou au passage police su Guédiawaay la woon bi ñu dañuy ñëw taxaw déjà soo xoolee seen kanam rek ñeme woo leen non ñeme woo leen fekk nekk ci oto ba assurance ba jeex na xamuñu ko mais dañu yóbbu ba police ba ah waaw dañu yóbbu ba police ba ah, ñu def seen convoi bu rëy oto yëpp jiitle ah je dama dama surprise parce que loolu musuma koo gis ah, am personnalité mosuma koo gis wax dëgg yàlla xam nga sama papa policier la woon. itam ah. dama takk der la ah tàggool tàggu na téléspectateur télévision Futur Média yëpp. Mm-hmm. di remercier bu baax complexe Sophia coiffure. di remercier nag sama goro sama yaay euh, Tata Rokhaya Ndiaye mi nga xamante ne tey moom moom may robe bi. Ah, di jaajëfal moom moo habillé tey de gis nga tey gis nga aw ma écrital waaye Aziz Ba ñëw bi nag moom it foog ma nuyu ko ndax su ma ko nuyu mu ñibbee mu doon mu mu ma ah merci tàggu naa téléspectateur télévision Futur Média yëpp. di leen wax à demain s'il vous plaît. soxna Degene damay siyaare nag El Hadj Malick Gakou ko. ndeysaan bi day tëj néegam ba lépp jeex mu a génn. ndeysaan ndeysaan yal sa bopp ma dégg nekk Bali waaye Malick Gakou def katu lu baax. ndeysaan ndeysaan. ak Papa Ngom. Alaaji Papa Ngom moom Serigne Touba. ndeysaan di jël Madi. ndeysaan di char Alaaji Mansour Mansour Niass. ndeysaan ak Alaaji Baba nuyu na la. ndeysaan. Eh, eh, eh. tubaarkalla Baba Lamine Baba ngi sàkku ñaan waaw voilà. di char itam bu baax a baax tubaarkalla Euh, Mbaye Ndiaye mi ci data ak soxnaam su ay soxnaam sax lay wax. Euh, ñi nga xam ne tubaarkàlla jàppale nañ ko ci lépp. ak Samba Deli Fall ñoom ñëpp di ñaan nag soxna Awa Gaye soxna Asfaalum Cheikh Ibra. waaye maa ngi ñaa gërëm nag sama jigéen. ajaratu Biis Fall. di ko ñaanal bu baax. maam Bunaama maam Bunaama. Mm. ak ndey Maguette Dieye ak ñaañe Touré. waaye di gërëm ajaratu Leena Fall Diagne yàlla na ko yàlla gën a defal jàmm. bu baax a baax a baax. ak ajaratu Ndélla Wade. moom diine sax laay wax. ndeysaan ndax diine yëpp la muy Ndella Wade yàlla jàmmam gën di yàgg. macha allah di ñaan nag Asmansoor Mbay suñu président. communicateur ak Farba Ngom mi nga xam ne sunu la nag mooy denc suñu doom. aji mbay yàlla ni yàlla defal jàmm ñoom ñëpp nag. may tëjee nag soxna ah. Digeen. Hmm, defal may tëjee sax rek. Hmm. Euh, mooy. di ñaan Aminata Tall. ndeysaan su di doom. ndeysaan yal na léppam yoo am. Aminata dëkk la ne. la nekk. <laughs> Siri nekk. surig la nekk alaaji surig surig la nekk foofu la mi ngi taal nekk waaw foofu la nekk waaw dama ko toog. <laughs> alaaji ñëw laay yàlla defal ko jàmm. ñàkk yàlla defal ko jàmm bu baax a baax. amiin euh, di gërëm na ngit bu baax a baax. ndeysaan nag ndooy. ndeysaan na bu yàggu def naa kooku gaañoon te nekkoon France. ndeysaan rakkal woon léppam doon ñu di ko jaal moom itam. ak Margo mi nga xam ni. madame Cissé borom. Euh, <laughs> Margo Camara mu baax mi da nga koy dëxëñ ba suba jàmm nagam yàlla dogal na ko di jaalewaat baax nag rek Kumba Sall. ndeysaan wallaay wallaay. yal na ko yàlla teeru. wallaay wallaay amiin yaa jëfam yëpp rek yal na ko yàlla nangu. ndeysaan ak alaaji Adi Wade da ko daal dal nu. sama professeur boobu. yal na ko yàlla defal jàmm. ndeysaan te xam ne TFM. Mm.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 awa jax defe naa xaritu kumba bi fi ñëw sànq mhm. indi clé USB bi nga xam ne moom moo def photo yi ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko jaale tamit Sonia mi nga xam ne mooy def table yaay ngóone bu baax moom tamit ndeysaan yàlla def na ñaari émission yëpp ci table yaa oh. ngóone Sonia moo ko jëli woon fa tabakalla macha allah Alaaji di euh, nuyu bu baax a baax euh, Uli euh, Kader ma nekk ca Lyon Uli Diallo yaayu faali ñu ngi koy sargal bu baax a baax Alaaji nag di remercier Néma Onglerie ña nekk ca Ouest Foire tali bu bees ah, di nuyu bu baax a baax mama ummi madame Diaby ummi madame Diaby mu Cheikh Sidé Diaby mm-hmm. ah waa mm-hmm. Néma mm-hmm. Ongleri ñoom ñëpp ñu ngi leen di sargal sama doom jooju maman bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér alaaji di sargal bu baax a baax nag Waline Fall la reine du foulard et du chapeau gis nga alaaji tey ci fi mu génne yaa ngi seen père ya nekk ca gannaaw ne yaa ngi koy gis waaye di remercier tamit waa salon Déguène Chimère ñi nga xam ne ñooy def coupe yu baax yi alaaji su ma ko teggi woon sax waaye tegg bi papa laa koy may waaw moo gën koy may alaaji xool naa ba xool waa may ko <laughs>